coow bi dox ci diggante Yaa Awa ak El Hadj Ndiaye bu 2STV jeexagul ginnaaw ba directeuru télévision bu 2STV bi daal di génn wax keneen ki dugg ci wax ji moo di Omaro bu Cheikh Béthio Thioune di ab animateur foofee ca 2STV moom Omaro malgré relation yim am ak Yaa Awa bu TFM yooye relation terewul benn yoon ba animateur bi daal di far ak ki nga xamante ni moo di patron moom Omaro nag lim xamle moo di ki nekkul ci dëgg moo di Yaa Awa ndax émission bi moomu ko dara ki def dara nag moo di man bii di Abdou Ndiaye moom mi nga xamante ni moom moo créé émission bi moom Omaro ba lay mi ngi xam ne ni fa ko lépp fekk émission bii di célébrité religion concept bu 2STV la taalibe Cheikh Béthio bi nag xamle na ni ku ne am na droit changer télévision saa yu ko neexee waaye nag li dul yoon moo di yóbbaale émission boo xamante ni télévision bi nga nekkoon moo ko moom rawatina nag nga daat koy yóbbu ci télévision boo xamante ni ñoom ñaar ay wujju lañ ba tey animateur bi mu nga xamle ni El Hadj Ndiaye dafa sonn ndax liñ koy def lii dafa bëri ginnaaw défense bi mu jëlal patron di El Hadj Ndiaye Omaro yëkkati na ay conseillers jagleel ko kii di Yaa Awa nee na di Yaa Awa moom deful dara nit la ku diñ nit ku am fulla ci boppam liggéey la ko nit ñëpp xamee moo tax mu egsi fii mu egsi tey jii warul dellu ginnaaw wala muy dugg ci ay mbir yoo xamante ni amul njariñ te xame wuñ ko ko woon Omaro nag li mu jàpp moo di ba coow li commencé ba léegi kenn gisul Yaa Awa fu mu génn daal di weddi mbir mi télévision bu Futurs Médias dañoo war a dakkal émission bi ndax kat ñoom moomuñu ko émission bi waa 2STV ñoom ñoo ko moom dinañ def seen kéemtu lay kàttan ba daal di récupérer seen émission bi nga xamante ni moom la leen ñëpp xame ba léegi mu ngi xam le ni sax ni bu émission bi ñëwaatee 2STV moom mi lee mooy ki koy présenté